nazala alqurana ala abdihi li yakuna lil alamina nazira wa usalli wa usallimu ala man ursila rahmatan lil alamin wa radiya allahu an cheikhina abil habasi ahmad ibnu amar atijani waxaan waarisi sirrihi bil illaaq abil isxaaqa cheikhana wa moolana cheikh al islaam alhaaji ibrahim ñas waxaan jamihi xulafaihi wa moolana alhaaji cheikh omar ibn al muxtaar attijaani mbokk yi euh, mu mel ni temps yi daf ñoo xaw tënk moo tax dañuy tënk kàddu yi ñu ngi di nuyu nuyoo bi ñu yàlla boole muy asalaamualeykum wa rahmatullahi wa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 walxaatimi lima sabaq naasiri alxaq bilxaq walhaadi ila siratika almustaqim wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi alazim wa radi allahu an ashaabi rasulillahi sal allahu alayhi wa sallam wala hawla wala quwata illa billahi alaliyi alazim ya himmata seyqi durana bi hasal mahdari wal taatifi bi nazratin taati lana bi safarin assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokki jullit yi mbokki taalib yi xarit yi sapp yi am di jàmm yi góor ak jigéen mag ak ndaw ñu leen di nuyu nuyu bi ñu yàlla boole muy ñetti paat yoo xam ne nii doy na walis képp kenn ci ñun te kenn ci ñun doy luhut walis ko muy baatab jàmm di baatab yërmande di baatab barke yal na yàlla wàccee ci mbooloo mi wàcceeku ci barab bi wàccee ci daara ji mu mel ni li ñu waroon wax yépp xale yi daara yi wax nañ ko buy ci alquran wax nañ ko buy ci xam-xam wax nañ ko kon lu ñu def rek mooy toppaat ci seeni jeexit wax lenn ci ngëneeli alquran gannaaw bu ndokki la jullit yëpp nag ci weeru tedd wii nga xam ne ci lañu nekk muy weeru alquran weer wii di weeru koor mooy weeru alquran ndax ci weer wii la wàcc yàlla wàcce alquran ci weer wii moo jox weer wi teraanga ji mu am yépp kon alquran mooy téereb yàlla bi mbokk yi dañu amul temps moo tax dañuy tënk suñuy kallima ndax dañoo ne ci weeru koor te diggéen tàkkusaan ak timis waxtu bu xat la te am nañu jógee ci yeneen palaas yu fasantikoo war a dellu ci palaas yu fasantikoo te bu guddee rek man leen a lor xabla kulli shay'in ñu wax ne dañuy waxtaan ci lenn ci ngëneeli alquran ndax alquran xéewal la goo xam ne buñ ko doon lim mënuñ koo dajal wa in taodu nicmatallahi la tuhsuha alquran pour ñi xam dëgg-dëgg alquran fa ñu taxaw xool lan mooy alquran fan la alquran jóge kan moo indi alquran fan lañ yóbbu alquran ci fan lañ ko yóbbu pour ñu xam dëgg-dëggi alquran mooy lan yàlla borom bi subhaanahu wa dafa bind doomu aadama bindal ko ñaar muy place ak jamono muy temps ak makaan amul dara lu nit di def lu dul ci ñaar yooyu la koy def benn ci barab walla ci jamono alquran wàcc ci jamono yi gën ci jamono yi muy jamono yoon bi sallallahu alayhi wa wàcc ci place bi gën ci place yi muy umul xuraa di makkatul mukarrama xanaa loolu rekk dayoon na alquran nga fan la alquran jógee yàlla moo ko nettalil boppam nee na tanzilun min rabbil alamina tanzilum min rabbil alamina kon alquran ci àll la jóge doyoon na ko loolu ngëneel leetar bu jógee ci yàlla nag jëm ci jaame yàlla yi dama ne ëpp naa classé ci ay classeur war nañ ko ubbi war nañ ko jàng suñ ko mënta jàng war nañ ko jàngalu fii ci àddina rekk président Macky Sall ku mu joxoon leetar rek du fanaan ci yow te xamoo la ca nekk ku ci ñun rek du fanaan ci yow te xamoo la ca nekk leetar bii nag ci yàlla la jóge jëm ci ñun ñi xool ndax war nañoo xool la ca nekk xam ko bu ñu xamul ñu dem ku ñu ko xamal mu jóge ci yàlla yàlla jaarale ko ci malaaka mi mu gën a fonk muy jibril alayhi salaam bari bëri malaak israfilom fa asrail mikail ñépp wa ma yaalamu junuuda illa huwa kenn xamut lali yàlla yi lu dul moom mboolem malaaka yi yàlla tànn ci jibril bi nga xam ne moom laa wax ne qul nazalahu ruuxul quds jibril mooy ruuxu gu sell gi yàlla tànn ko jox ko alquran mu indil ko yonent bi sallallahu alayhi wa ki nga xam ne moo gën ci mbooleem mbindeef yi jibril indi alquran ñi xoolaat fan la jibril indil yonent bi alquran pour rekk nga xam ne ne li alquran dëgg dëgg dëgg yàlla waxaat ne nazalahu ala xalbika yenentu jëmm la yenentu xel la yenentu ruuxu la yenentu ay cër la am waaye xoolal yàlla yooyu yëpp mu ne nazalahu ala xalbika ci xolob yenentu bi sallallahu alayhi wa sallam ci lañ wàccee alquran mu jëm fan jëm ci xeet yi gën ci xeet yi xeet wi gën ci xeet wi muy xeet yonent bi sallallahu alayhi wa sallam alquran a ngoog téere bi gën ci téere yi jóge ci borom bi subhanahu wa taala jaar ci malaaka mi gën ci malaaka yi muy jibril ñëw ci xolob yonent bi sallallahu alayhi wa mu nga xam ne xol mooy palaasu yàlla ci jaam bi danañ ci ñëw tuuti ci kanam ndax ca xadis ba yonent bi dafa wax ne sallallahu alayhi wa sallam am na ci doomu aadama lumb woo xam ne su baaxee lépp baax am na ci doomu aadama lumb woo xam ne su yàqoo lépp yàqu ñu ne ko lan la mu ne allah wa hiya alqalb yonentu loolu la wax inna fi ljasadi mudaqatun isaa salaha salaha aljasadu kullu wa isaa fasada fasada aljasadu kullu ñu laaj ko ko mu ne allah wa hiya alqalb xol boobu moo tax yàlla mboolem cëri yonent doy lu ci benn lu dul xol ba ndax mooy palaasu yàlla ci moom kon alxuraan a ngi noonu doyoon na ko rek ngeneel yooyu nga xam ne moom la làmboo njëkk muy ñëw ci ñun mu mel ni dañu ne nañuy wax lenn ci ngeneeli alxuraan bokk na ci ngeen mbokk yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ci xadis boo xam ne abe saidin alxudri radiallahu moo ko solo jëlee ci mu jëlee ci boromam mu ne yàlla wax na ci ngeen li alquran man shaqalahu alquranu wa zikrihi an masalatihi ataytuhu afdalu mima utiya saa'ilin mbokk yi alquran na ngi nii ak yi ngëneelam yàlla subhaanahu wa taala nee na képp koo xam ne alquran daf ko soxlaal tudd yàlla daf ko soxlaal walis muy naan yàlla ya allah ya rabbi ya rabbi yàlla nee na man yàlla danaa ko jox loo xam ne joxuma ko sax ñii laaj ñay tàllal seen loxo laaj yàlla yàlla nee na koo xam ne alquran nga soxla woo tudd yàlla nga soxla woo man yàlla ma jox la lu ma joxut laajkat yi loolu mbokk yi neex naa dégg waaye nag lan mooy soxla woo alquran foofu moo am taxaw seetlu lan mooy soxla woo tudd yàlla mbokk yi soxla alquran mooy la yonent waxoon sallallahu alayhi wa sallam xayrukum man wa allamahu ki gën ci yéen mooy ki jàng alquran ba noppi di ko jàngale ñoo ñooñu ñoo gën ci yéen soxlahu alquran mooy nga sonn ci jàng ko sonn ci jàngale ko sonn ci jàngalekati alquran yi comme niñ ko waxee léegi ku mel ni sang yu baax yi ñu tuddee jotaay bi tey mu Jabel Cissé Jabel Seck ak suñu yaay suñu sëriñ asmaaw loolu mooy soxlawoo alquran dimbale ñooñ alquran dimbale ñooñ daara dimbale ndongo daara yi képp ku nekk ci loolu soxla soxlawoo nga alquran yàlla nee na képp ku ne ci loolu man yàlla ma jox ko lu ma joxut laajkat yi mu mel ni ñaar ñoo am ñaari tudd yàlla yi muy baatab rahman ak baatab rahim nga xam ne danañ ci ñëw ci biir fatihatul kitaab fatiha am na juróomi tur yàlla am na allahu am na rabbu am na rahman am na rahim am na malik mu mel ni yàlla def ne xalaxtuka yabna aadama fa anna ilaahun yow doomu aadama yàlla maa la bind man maay sa borom suma rabaytuka fa ana rabbuka ma yar la man yàlla maay sa maay lay yar mooy sa borom mooy ni kon budda yar mënta ñàkk lu mel ni lii nga xam moom la la bi def ci xale yii nii danañ ci ñëw mu ni ko su ma xasayta nii fa xafartu ana rahmaanu man yàlla ma bind la yar la nga tooñ mooy ma man yàlla ma jéggal la maa jéggalaa koon bi bi nga jógee ci maqaama boobu su ma tubta fa ana rahimu nga tuub man yàlla maay rahim mbokk yi rahman ak rahim arrahman isaa suila utiya wa rahim isaa lam yusal yuxdab lu fa lañ utee kii su ñaane yàlla yàlla jox ko kii nag bu ñaanut yàlla mer boo nekkee ci maqaamab rahmaan loo ñaan yàlla yàlla jox la ko waxtu xuusee ba nekk ci maqaama maqaama rahim yàlla soo ko ñaanul sax dalay mere kon kooku xam nga ne kon dan la jox lu bëgg a xam ne dan la jox ci lu dut laaj yàlla dana jox jaam bi ci lu dut laaj innama yuwaffa saabiruun ajruhum bi xayri xisaab kon alquran a ngi noonu ak nga xam ne moo soxlawoo alquran yàlla ne képp ku koo xam ne alquran mooy soxlaam tudd yàlla mooy soxlaam ma jox ko lu ma joxul laajkat yi boroom xam-xam yi ne tudd yàlla ñaari xaaj la yàlla wax na ci alxuraan ñaari tudd yàlla bii mu ne tudd leen yàlla tudd gu bari wa zakirina wa zakirati kasiran waskuru laha sikran kasiran tudd leen yàlla tudd gu bari tudd yàlla gu bari mooy lan tudd yàlla ci sa làmmiñ ba mujj àgg ci sa xol ba mujj àgg ci say cër yépp lu tudd yàlla yaa ngi ci wa zakirina laa kasiran wa zakiraat tudd yàlla lu néewu alquran indi na ko yurauna annaasa wala yaskuruna illa xalilan mooy naafiq yi kon ñaar ñii ñoo fi nekk jullit bi ak naafeq bi naafeq bi tudd yàlla yàlla wax na ko dafay ngistal tuddut yàlla lu dut lu néew ki gëm yàlla dafay tudd yàlla ci làmmiñam mu mujj àgg ci xolam mujj àgg ci ay cëram ba jëmam lekk lépp nekk di yàlla tudd yàlla googu nag lañu soxla mbokk yi su ko defee alquran lenn ci ngëneelam mu ngi noonu waxaat na ci nga nee li alquran ne wa fadlu kalaamillaahi ala saairi lkalaami ka fadlillaahi na sallallahu alayhi wa sallam ngëneel alquran waxi yàlla ngëneelam nu ci mboolem wax yi mi ngi mel ni ni mbindeefam yi kon loolu képp koo xam ne yaa ngi koy sonne wala nga jël sa doom dugal ci xamal ne yaa ngi yootu nga loo xam ne xamoo nu mu toll ba tey mbokk yi ci nga ne li alquran nee na sallallahu alayhi wa sallam iqra'u alqur'ana fa innahu yaati yawma alqiyamati shafi'an li ahlihi mbokk yi alquran téereb yàlla alquran yonent bi nee na jàng leen alquran bés penc dana ñëw alquran du ramb lu dut ñoñam nañ alquran ñooy ñan mooy ahlullaahi ahlul qurani hum ahlullaahi wax nañ ne xale bi jàng alquran yàlla ci mbaaxam dana jéggal ci wàllu yaayam juróom-ñaar fukk jéggal ci wàllu baayam juróom-ñaar fukk xanaa loolu rekk doyoon na nga jël sa doom yóbbu daara ja doy na ngëneel rekk xale bi ñu jéggal juróom-ñaar fukk ci wàllu yaayam jéggal juróom-ñaar fukk ci wàllu baayam ñu waroon dem safara loolu rek dayoon na ngëneel ci alquran mbokk yi mu mel ni buñ ne alquran ne yar buñ ne alquran ne daara buñ ne alquran ne sëriñu daara ndax mooy ñi ŋànk alquran ñi xool nag yarekat bu mag bi yaraatekat bi gën a mag muy yàlla ñi xool ki mu yar yonent bi gën a mag ci yonent yi mu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax naa leen daara jàngale alquran ak ci yar xale bi mu ngi ci defar jikkoom mu ngi ci yooyu la daara boole duhur rekk jàng alxuraan xale yi ne fii doon tëri yéen waajuri ndongo yi toujours dama naan nañu wàññi parents d'élèves yi baat boobu nañ ko soppi nañuy wax waajuru ndongo yi loolu lañ moom ku ci sa doom nekkoon sa kër ñëw fii at nga ñëw gis ko fii di xam ne am na la soppeeku ci moom ci jikkoom ci yaram ci mag xaalam ci waxam ci jëfam kon loolu du wut rek ñëw jàng alquran dañ lay yar defar sa jikko danañ ci ñëw mbokk yi nañu xool yaraatekat bu mag bi yàlla yonentu moo wax ne addabani rabbi fa ahsana ta'dibi yonentu nee na yarkat bu mag bi di yàlla moo ma yar te moo rafetal sama yarin mu nekk dar su mbokk yi kon yar am na waaye yar bu rafetit am na soo bëggee yar nag ak yar bu rafet demal ci ku am demal ci ku yaru kuñ yarit yar bu rafet ku mel ni Cheikh Ma Omar bi nga xam ne suñu rakk la suñu xarit la suñu lépp la yonentu moo ne ta addabani rabbi fa ahsana ta'dibi yàlla ma yar moo rafetal sama yarin xam nga mënoon naa wax ne adabani rabbi fa xasana te day wér waaye xoolal li mu utiliser afala taftil fa ahsana gis nga yàlla bëgg na lu rafet lool waaye nag lu gën a rafet la gën a bëgg te boo jàngee alquran dañ ko fekk ci biir alquran lu baree baree bare alaysa allahu bi ahsani bi ahsani taqwimin da fekk mu ne wa man ahsanu qawlan mimman daa ila llaahi da nga fekk mu ne wa isaa huyitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsana minha dégg nga waxal waxal jasaau ihsaanu ila al ihsaanu demeet ba alquran jeex nga fekk yàlla fu muy tuddee lu rafet rek daf naan lu gën a rafet kon mane yar am na waaye yar bu rafet am na waaye yar bu gën a rafetit am na daara jii nag palaasu jàng alxuraan la palaasu yar la waaye palaasu yar bi gën a rafet ci yar yi te mooy yarab lislaam moo tax ngeen ngeen gis ñi bind ci bulu si xale yi daarul quraan madinatul faas li taxfiisil quraani wa tarbiyati al islaami wa tarbiyati al islaamiya kon yonentu yàllaa ko yar yàlla rafetal yaram yónni ko ci mbooleem mbindee fii jox ko alquran ji nga xam ne moo ñuy dajee fii tey mbokk yi maa ngi bëgg ñëw ci jikko xoolal yàlla bi mu yaree yonent def ci moom lam def ci moom jox ko alquran def ko muy xaatimul anbiyaa yi wa imaamil mursalina def ko muy mbindeef mi gën ci mbindeef yi wàcce alxuraan ci moom mu nekk yërmaane ñeexal xeet bi mboolem xeeti teraanga yi ak ngëneel yàlla jox na ko waaye moom benn diplôme la ko jox benn diplôme la jox la jox yonant sallallahu alayhi wa lan wa innaka la ala xuluqin azimin mënoon na faa nekk ne ko yaay sangab yonent yi yaa yërmaande mooxal mboolem mbool ñeexal mboolem mbindeef yi yaay njiital yonent yi waaye xoolal yonent li mu am ci ngëneel li am ci ay xar baax yàlla wa innaka la ala xuluqin azimin yow daal sa jikko rafet na yow daal jikko ju kowe nga am mbokk yi yar am na yar bu rafet am na yar bu gën rafet am na waaye fexe ba def ci nit ki jikko ju comme li yàlla def ci yonentu sallallahu alayhi loolu am solo la te loolu ci la sëriñ bi nekk ak xale yi nga xam ne ñoo na ci ronam ak mbooleem ñi ànd ak moom ci liggéey bu réy bii ñu taxawal yàlla ne yow yonantu yaay borom jikko ju kowe ja gis nga jikko olof mu ne jikko ñu ne déedéet jikko la da koy ji di suuxat muy màgg ak moom ba mel su ma ñee jëriñ dañu wax ne jikko mooy matière première lépp lu ñuy liggéey am na matière première bu lu ñuy lekk ak bu lu ñuy jëfandikoo yépp dafa am matière première ñu ne jikko ci doomu aadama mooy matière première am su baaxee lépp baax bu baaxut dara du baax innama al umumu axlaaqu ma baqiyat fa inhum sahabat axlaaquhum sahabu comme ngeen koy déggee nit ki bu fexee ba jikkoom sell mooy xolom baax ñi defar xolom ba nga xam ne alxuraan mën na koo dékku tudd yàlla mën na koo dékku ñu ne am na numéro un kon ñu ne jikko mooy numéro un ci doomu aadama waxtu boo xamee ne góor-góorlu na ba am alquran comme xale yii ñi monteel ko benn sero mu am diis su góor-góorloo ba teg ci xam-xam niki xale yii ñi monté ko beneen zéro mu am cent mu góorgóorlu ba am wilaya ñi monté beneen zéro mu am mille mën na góorgóorlu ba am barke ñi monté beneen zéro muy dix mille mën na góorgóorlu ba am beneen xewal muy alal ñi monté beneen zéro muy cent mille mbooleem xeeti teraanga yi ci kaw suuf bu góorgóorloo ci itteem mën na koo am muy lim boo xam ne kenn xamu nu mu pour nga xam nag li jikko présenté ci doomu aadama kaa nga xool li am ni mu am na xam-xam mu am dix am na alquran am na cent am na wilaya am na mille am na wërsëg am na cent mille am na alal am na dix mille demeel ba ci lu amul dayo loolu mooy nit ak jikko mbokk yi waxtu woo xamee ne fexe na ba jikkoom yàqu mooy ba ñortal un ba nit kooku amatul dara lépp sero la lépp ay sero la un ba rek ma présenté sero yépp mu nekk garaat bu foor ci moom waxtu wu wàccee sero ba doomu aadama ay sero kese fa des dara nekkatu fa kon bu ñuy tabax daara di tabax fu ñu jàngee alquran pour yar xale yi jàngale leen alquran duhut ludut defar seen jikko bañ mën a nekk ci penc mi te duñ ko yàq yàquk penc mi yépp mooy ñàkk a defar jikko yi ñàkk defar euh, jëmm yi naka noonu ñàkk yar xale yi ci alquran alquran nee na sahara alfasaadu fi lbarri walbahri bima kasabat aydi nnaas la yuziqahum bada lasi amilu wa laalahum yarjihoon kon ndekete jafe-jafe yi àdduna am yépp sàgganee alquran la jafe-jafe yi àdduna am yépp ci jéeri ji ceeb bu seer bi dund bu jafe bi xaalis manki feebar yi jafe-jafe yi yépp ndekk ñàkk dellu ci alquran la jafe-jafe yi ci géej gi jën amatul napp gi doxatul lépp ñàkk dellu ci alquran la yàlla ci mbaaxam nag daf ne li nuziqahum ba'da lasi amilu alxuraan mbokk yi téere bu doy waar la yàlla moom mu ne jaww ji waxu sa yàqu na daf ne yàq feeñ na ca bu yàqu woon kenn du fi neexati mu ne naka noonu ni feeñee ci jéeri ji la feeñee ci jaww ji na la feeñee kon ci géej gi ànd loolu yëpp yàlla ne ma mosal leen ci lenn li nga xam ne jëf ngeen ko ndax ngeen dellu ci alquran ak sunna su ne ma fay leen ko kenn du ko attan ma mosal leen la wax te boo jàngi alxuraan di nga fekk ne yàlla lépp lu muy teg jaam bi daf koy mosal waaye fayee ko xantewuta ak moom nga jàng ci alquran yàlla di wax ne sàcc bu jigéen bu góor ak sàcc bu jigéen wa saariqu wa saariqatu faqtoo bu ko neexoon kay mu ne ku sàcc ku góor wala sàcc bu jigéen dagg rey leen ko sax bu ko neexee waaye déedéet dafa ne dagg leen benn loxoom bu sàccaatee nga dagg beneen tànkam bu sàccaatee nga dagg beneen loxoom bu sàccaatee nga dagg beneen tànkam bu sàccaatee bu góor gi àggaan ci loolu radiallahu anhu maulana Cheikh Omar danaan xanaa gémminam la koy jëlee mu ne bu sa bu daggee ñaar loxoom dagg ñaar tànkam kon bu koy jëlaat gémmin lay sàccee lislaam dina taxfiif la yàlla fayantuhut ak jaam bi daf leen ne mosal ci lenn li ñuy def ci bàkkaar bu ko neexoon mu ne mu sàccee rey leen ko deful loolu na xool ci sàcc alxuraan dafa nekk téere bu doy war bi mu xamee ne sàcc góor moo ci ëpp doole jigéen dafa njëkke góor wasaariqu wasaariqatu bi mu demee ci bakkaarab njaalo mu xam ne jigéen moo ci ëpp doole góor daf ne azaniyatu wa zani bu ko neexoon mu ne rey leen leen waaye rey ga sax yombul daf ne azani wa zaniyatu azaniyatu kon wa zani fajlidu caw leen leen téeméeri yar bu nekkee ku sangeewu ku sangeewut mooy koo xam musul jaar ci bu mag sëy bu dee ku sangeewu mu ne rey leen ko waaye xoolal rey ga ñeenti seede yu maandu jógee ci gox yi fasanti fasantikoo kenn di ko wax sa morom ñoo koy seede lislaam saxal rey googu noonu bu ñetti ñëw bu ñetti ña waxee na gis nañ ko kenn ki na man de leeruma lislaam du rey dañu ñett ña saxal daf leen ni caw ay yar kon yàlla faye fayantooxut ak njun daf ñuy mosal ci lenn li ñuy def ci bàkkaar xoolal sàngara bi yàlla waxee ne yaa ayyuha allazina amanu laa taqrabu salaata wa antum sukaara bu leen jege sàngara bu leen jege julli fekk yéen a ngi màndi bu ko neexoon kay mu ne bu leen jege bu leen naan sàngara di julli rek wala waxtu bu ngeen naan sàngara bu leen julli waxtu bu ngeen màndee bu leen jege julli ndax la ca mu waxaat ne innamal xamru wal maysiru wal ansaabu wal aslaamu rijisun min amali seytaani fajtanibu waxaane innama yuridu seytaanu an yuqia baynakum adaawata wal baxda fi lxamri wal maysiri wa yasuddukum an zikrillahi wa ani salaati fala antum muntahun ñetti aay yoo xam ne bu neexoon yàlla mu aay ko xat an waaye yàlla du doxee noonu yow yarkat bi mu ngi lay bul tëb ne bëgg naa kii wattu alxuraan léegi bëgg naa mu baax léegi bëgg naa mu àgg ci kaw léegi déedéet yàlla sax defeewut noonu ndànk-ndànk bañ demee ba ca aay bi mujj fala antum muntahoona kero la sidna Umar ne intahay naa yaa rabbi intahay daytalu nañ ci naan sàngara daytalu nañ ci naan sàngara ñooñu alxuraan dafa jeexital ci ñoom mbokk yi maa ngi woon ci jikko pour alquran ne jikko yi ñoo delluwut ci alquran ñoo delluwut ci yàlla ñoo sellul moo waral jafe-jafe yi am ci ko suuf yàlla fekk ñi ngi ci li mu ne li mu santaane di ko def lam tere ñi bàyyi ko la mu mukk du dañ mukk ndax yàlla moo ne wa awfoo bi ahdikum tal sama kóllëre nit ñi mbokk yi ci defar jikko te moo tax a jóg ustaas mii nga xam ne moo tax ni dajee fii dafa am ñaari jaami yàlla kii jaamakatam yàlla la ba jibril yéemu ci moom kii nekk mooy katam yàlla ba ab yonentu génnee ko dëkk xoolal ñaari jaam yàlla yi nga xam ne yàlla nee na soo matalee sama kóllëre ma matal sa kóllëre boo ma sante ma dolli la kii jaamam yàlla la jaamu yàlla ba jibril na yow yàlla sa jaam diw sàngam dama ko bëgg a siyaare ji yàlla ne ko ci sartaab demal ci lawhil mahfuus nga xool turam mu dem lawhil mahfuus fekke fa turam ñu ngi ko bind minal ashqiyaa yi mu ngi bokk ci ñi texeat yi te waa ji dafa jaamu yàlla ba jibril ñee ko ne yàlla dama koy gane mu dikkal jaamam yàlla bi nag yow yàlla sama borom moom mooy ebal ci yow waaye li ma jaaxal mooy man dama laa sëpp ba ñëw seet si la man ma xool ca lawhil mahfuus fekk ñi bind la minal ashqiyaa yi ñi taxaa di nga bokk yow diglu jaam bi lu mu wax mu ne alhamdulillah mu ne sant na yàlla law lam akun ahlan li zalika lama faala bi rabbi mu ne bu nekkoon xelloo ma loolu kon yàlla du def loolu ci man loolu laa xelloo kon maa ngi sant yàlla yàlla ne jibril jibril dellu kon ci boromam mu tekki lan ne alhamdulillahi ala siddati wa raxaa'i maa ngi sant yàlla ci yomb yomb yi ak jafe-jafe yépp maa ngi sant yàlla jibril dellu ci boromam yàlla ne ko dellul nga xool ca lawhil mahfuus mu dellu xool fa wajada ismahu qad tahawala min al ashqiyaai ila saadaai mu fekk ñi soppi turam ci ñi texe xadi yóbbu ko ci ñi taxe lu ko ko may alhamdulillah yàlla moo ne la in zakartum la in shakartum la azidanakum ba mu sante yàlla yàlla daf ko dolli far turam ci texe ñi taxe xadi ñi yóbbu ko ci ñi taxe xoolal jaam bi abdul asin la mooy yàlla la mooy yàlla ba yàlla diggante yàlla Moussa ne ko génnee ko ci dëkk bi yóbbu ko beneen dëkk mu yóbbu ko fa mu continuer mu ne ko génne ko ci dëkk bi yóbbu ko ci àll ba ci benn doj mu dem ba ci xuntu bi dee dikkal ko mu dellu ci yàlla gis nga yàlla waxtu woo ko bàyyee xel mu bàyyi la xel dee ñëwal na ko te musul def lu baax ci dundam mu ne yow yàlla fii ma nekk nii de bu fi sama yaay taxawoon dana ma dimbale dana ma jooy yow yàlla fii ma taxaw bu fi sama jabar nekkoon dina ma jooy yow yàlla fii ma taxaw bu fi sama njaboot nekkoon dana ma jooy yow yàlla fii ma taxaw fi sama baay nekkoon dana ma sang mu am ñeenti jàmbat yim jàmbat yàlla mu teg ci ne yow yàlla yàlla bul ma bul ma dagg ci sa yërmaande comme ni ma daggee ci sama ñoñ yow yàlla yàlla bul ma ragalloo sa safara xanaa kon tuub na dellu ci yàlla ba mu bàyyi xel yàlla yàlla bàyyi na ko xel ñu ne yàlla xebal ay xawraa ci melow doomam yow yàlla yàlla ebal benn xawraa ci melow yaayam xebal keneen ci melow soxnaam ebal keneen ci meloom ay doomam ebal keneen ci melow baayam mu gis leen xolam dal mu ñaan ñaan gu mag gi ne yàlla yàlla bul ma dagg ci sa yërmande comme ni nga ni ma daggee ci sama ñoñ ba mu ñaane yàlla loolu yàlla nangu ñaanam na yonent yàlla Muusa demal ca doj wa sama wenn waliyu yàlla mu nga fa Muusa ñëw fekk jaam boo nga xam ne moom xam na ko xamoon na ko démb yàlla na ko demal ci sama wàllu yàlla boobu noonu mu ñëw gis ko xàmmee ko laaj ko ne ko ci maanaa bi ma xufirta lakk lu tax ñu jéggal la mu ne ko dama ñaan yàlla bu ma dagg mukk ci yërmandeem naka noonu bu ni ma daggee ci samay mbokk yàlla nangu sama ñaan loolu la ma jéggalee kon ñaari jaam a nii ku ci nekk sant yàlla dellu ci yàlla moo tax yàlla jéggal la say bàkkaar fi may tëjee mooy loo xam ne nii ngeen baal ma tuuti rek soxal na daara ji soxol na yaayi daara yi soxal na taalibi bi waaye soxal na itimin jàngalekat bi Abdul Xaadir Alkaylaani radiallahu anhu comme fi xale yi tollu nii rek tollu ci jàng mu jóg di sàkku ji xam-xam yaayam jox ko yóbbal bu toll ci ñeent fukki diinaar darsu la kon ku am xale buy jàng bàyyil xel ci ñeent fukki diinaar yooyu ci sa doom waxtu bu nekk mu jóg di dem yaayam na ko sama doom kaay ma dénk la ñaari baat na nga taxoo dëgg ak kóllëre aleyka bi sidqi moo tax moom ba muy netti daf ne baneetu amri ala sidqi sama mbir yépp maa ngi ko tëgg tëgg ci dëggu ak kóllëre ñu ne mu dem ba ci yoon daje ay addu kalpe ay lusuus ñu ngi ànd ak seen kilifa gu mat kilifa ci la ñuy def apprenti yi taxaw ci kaw yoon wi ku ñëw ñi palpe la jël la nga am agsi ci moom ñii denc lañ am ñii nëbbu ñii suñ làq ba gisuñ ko ñu agsi ci moom na ko loo yor mu ne ñeent ñeent fukki diinaar waa ji ne ko xanaa yor da ñuy yor mu ne ñeent fukki diinaar mu yaakaar daf koy caaxaane mboole ko beneen seen beneen mag kooku laaj ko loo yor mu ne ko ñeent fukki diinaar mu foog ne dafa koy caaxaane yóbbu ko ci seen kilifa gu mag gi mu àgg mu enquête que loo yor mu ne ko ñeent fukki dinaar mu ne ko yow loola xiir ngay wax dëgg gi mu ne ko dama kóllërante ak sama yaay ci ne naa dëggu naa matal kóllëre te bëgguma xuruj mukk sama kóllërante ak sama wajur wu jigéen loolu moo tax ma feeñal lii ma yor waa ji ne est-ce que yow yaay matar sa kóllëre ak sa yaay xaskane man lu tax duma matal sama kóllëre ak sama borom daal dina ko damay tuub ci yow matal sama kóllëre ak sama borom mu tuub ci moom bàyyi lépp lu mu doon def ñi àndoon ak moom ne ko ah yow kat yaa nekkoon suñ kilifa ci ñaawteef fii nga doon ñu doon def tey ci tey yaay doon suñ kilifa ci tuub gii ñoom ñëpp tuub ànd ak moom xanaa kon taalibe bi mi ngi jàngi àggu ci kër sëriñam sax waaye gaa commencé na am ay taalibe li ko ko may dëggu matal kóllëre mu nekk darsu ci xale yi jàng waajuri ndongo yi ñun waajuri ndongo yi nañu bàyyi xel ci la yaayi Abdou Khadir def ci doomam ba muy dem jël ñeent fukki dinaar jox ko yóbbal pour mu ngan naa yokk taalibe bi dafay soxla toujours yóbbal boo xam ne daf koy jëriñoo nañ ci bàyyi xel naka noonu darsu ci sëriñ bi na teg daara ji ci dëggu ak sàmm kóllëre darsu ci jigéen ñi ne ci kër yi ci sëy ci kër yi ci daara yi nañu bàyyi xel ndongo yi ci dëggu mat ak kóllëre <coughs> ah, mbokk yi fi ma tëjee commencé woon fa laay tëjee mooy ne waxtu bi dafa xat dañoo tënk dars bi ci lenn ci loo xam ne bu ñu ko yóbbee rek jëriñoo ko di gërëm nag mboolem ñu fi teew di ndokkeel suñu sëriñ yi nga xam ne ñoo taaral jotaay bi moo waroon a jiitu dama ne comme dafa xat xaaral ma mujjee ko muy doomi Baye Sama Touré yi nga xam ne suñu lépp ñoom la ki leen ci ur tey jii di Hawa muy doomi sëriñ bi mu ngi fi teew ànd ak ay rakam ànd ak sati sëriñ bi njiite Babacar jaw ak mboolem ay rakkam ñëpp ñu ngi si jotaay bi ñu leen di gërëm. di leen sagoo di leen ñaanal yàlla di ñaanal yàlla itimin borom jotaay bii di maa omar di suñu rakk yal na yàlla dëgëral ko yal na yàlla sàmm ko sàmmal ko yàlla wattu ko yal yàlla aar ko di ñaanal ñi ngànk daara ji ba kenn xamul xamulu leen dara yal na yàlla dolli leen te yàlla bu leen yàlla wàññi mukk yal na yàlla saxal leen te saxalal leen yal na yàlla wattu leen yal yàlla aar leen ñaanal képp ku fi teew muy góor muy jigéen mag di ndaw yàlla na yàlla jox la sa càkku téef ci zahir ak ci baatin <coughs> dañuy gàttal kàddu yi ndax comme ni ko waxee rek waxtu yu njëtt ta dañoo ne ci weeru koor lépp lu ci jub ba ngeen dégg ko ci te boobu sëriñ bi la ak ci mbaax ak yàlla ñu ngi ko sant yàlla di ko ñaan yàlla mu dolli lépp lu ci lënt wala lépp lu ci am rëq-rëq ci xamal ne wax la xam-xam bu tuuti ak ñàkk fasaa ak ñàkk jàng wala ñàkk mokk la nga jàngoon la waaye du ci ñoom suñu sëriñ ci jot suñu sëriñ ak jotaay fees del Seydi Ousmane Dia mu ngi fi suñuy mag yu góor ñu ngi fi ak yu jigéen bu ñu limee du ñu dajal suñuy rakk suñuy sët suñuy doom suñuy jarbaat ñëpp a ci jotaay bi ñu ñaan yàlla jotaay bii nga xam ne daaw ci heure bi ñu ngi fi woon yàlla yàlla may ñu fekkee ko déwén fekkee ko ay déwén yu baree baree baree baree bare te lépp lu ñu fi ñaan yàlla yàlla nangul ñu ko lépp lu ci dëng ci ñun la lu ci jub ci yàlla la in uridu illa islaaha ma stata'tu wa ma tawfiqi illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi wa salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh